combat grand combat lañ mën a wax diggante Mbacké Faye at kan at Madji Madji diggante Mbacké Faye at Madji Madji ar bi baa wax li lamb bi laaj na leen nee na ndax pare ngeen kaa leen nee na ngeen ñëw ndeysaan Madji Madji at Mbacké Faye ndeysaan Mbacké Mbacké Madji Madji at Mbacké Faye ndeysaan ar bi siflu na da ko def maji maji moo ñu woon ginnaaw Mbacké Faye lañ jàkkaarloo ndeysaan ndeysaan ndeysaan kii nekk igri waalo kii nekk Rock Énergie ñaari xale yaa ngi noonu si géew gi ndeysaan Mbacké Faye ngi dox si kawam waaye maji ngi arrière ndeysaan ñoom ñaar a ngi noonu si géew gi soo xoolee Mbacké ngi dox si kawam waaye maji mi ngi arrière tey 8 mars journée sargal jigéen journée ndeysaan maji eh ba tey ba tey arbitre woowu leen de bëri leen ah ba tey arbitre de bëri leen arbitre suuf newul de bëri leen arbitre de bëri leen Mbacké Faye li nga def wóorul asaan maaji maaji soo xoolee Mbacké Faye mi ngi dox si kawam maaji maaji Mbacké eh door na ko góos duraat jël ko bañ xeex na génn gé eh, Mbacké Faye Madji Madji génn na saako yi Madji Madji at Mbacké Faye saan Madji Madji at Mbacké Faye Mbacké Faye jël avertissement ñoom ñaar ku ne am nga benn avertissement ñoom ñaar ñoom ñaar ku am nga benn avertissement arbitre bi sifflé waat na Mbacké Faye at Madji Madji soo xoolee Mbathie Café toujours day dox si kaw Madji Madji day dox si kawam à tout moment day dox si kawam Mbathie Café at Madji Madji ndeysaan eh gof go droite songu ko mu mu tëru ko nañ ñoom ñaar Mbathie Café dëbb na naax oñ na mu bañ da koy oñ bëgg a lalli Madji bañ ndeysaan grand combat baa ngi noonu ñoom ñaar rek noonu si géew gi ndeysaan waxale Mbacké Faye mi ngi dóor Mbacké Madji Madji fayu na Mbacké ne ñoom ñaar wet saaku yi laali na takk na ko si wet ga Mbacké Faye ngi si wet ga da koy tegal siège wala wala Madji da koy mbot saan ñu xool ay waay da ngaa daw bi daw gëstu ko moom ndeysaan Mbacke Faye na maaji maaji Mbacke Faye na maaji maaji bu giri waalo ndeysaan Mbacke na maaji maaji bu giri laa ilaaha ndeysaan ñu ngi saafonte ñu ngi saafonte ñoom ñaar